ak euh, Maymouna mhm. euh, ci euh, tournure bi mën a am procédure judiciaire en cas de mort. mu nekk loo xamante ni euh, très souvent nit yi dañuy euh, désarmé bu fekkee ni que dañu nekk nit en contentieux nit ki nag malheureusement mun a décédé daal di décédé <laughs> wala ki nga xamante ni moom moo porté plainte moom aussi mu dem ba ñàkk bakkanam donc euh, demoon nañu seeti benn avocat bu en la personne de maître Djibril Wele nañ ko déglu mu indi lañu si ay leeral ñu dellu si wat si classe bi procédure pénale la wala bu fekkee procédure civile la voilà bu fekkee pénal la nit ki moom boo koy topp euh, du moment que moom génn na àdduna décédé na li ñuy wax l' action bi day jeex l' action publique sept ans loolu noonu jeex na kon kooku kenn mënatu ko topp procureur mënatu ko topp wala duñ ko mën a tëjee teg parce que kooku noonu décédé na. alors en ce qui concerne les intérêts civils parce que nit ku nekk comme par exemple dañ naan la tëj nañ ko tel tëj nañ ko tel bu nekk une peine boo xam ne c'est ferme wala tëj nañ la tel mais aussi sur la réparation moom la ñuy wax les adresses civiles dañ naan ko tëj nañ ko à ce que mu remboursé la tel montant tel montant tel montant montant yooyu la ñuy wax civil yi loolu noonu du jeex yow yaa ko moom donc nit ki même bu génne àdduna mën nga ko topp après voilà si patrimoine maanaam après loolu nag day rejoindre li ñuy wax l' action civile kooku day mel ni yow aussi ki nga xam dafa am benn jugement boo xam ne civil kese la kooku aussi mën na topp nit ki si lu mu bàyyi mooy lu ñuy wax son patrimoine qu'il a laissé comme lu ñu doon wax boo principe bi ma doon wax la ñu dégagé léegi l'action du débiteur parce que il a un droit de gage général sur le patrimoine du disparu donc héritier bi bu ñuy ñëw dañuy ñëw donn da ngay donn li mu fi bàyyi si ay bien patrimoine bu fekkee dafa bàyyi ay bor tamit da nga koy donn waale bu fekkee dafa nekk amoo woon boo benn sûreté comme ni ñuy wax euh, nga amoon benn hypothèque wala oto bu ñu gagé wala ki bu nekk surtout yow da ngay nekk lu ñuy wax créancier chirographaire mooy amoo benn garantie bu fekkee dafa am koo xam dafa la fa jiitu woon am ay garantie da ngay xaar bu ko ko ba pare yow nga mën a ñëw soog a mais nit ki même bu génnee àdduna lu ñu mën a jàpp même bu génn àdduna war nga ko mën a topp bu fekkee bàyyi na fi dara bu fekkee dafay yoral bor yow jotoo dem tribunal jotoo def benn action judiciaire ba nit ki décédé da ngay perte. da ngay perte parce que nit ku dee kenn mënatu ko topp li ñuy wax la personnalité juridique kooku la ñu mën a topp koy topp mooy koo mooy mooy koo xam li ñuy wax ni ça s'exerce sur la personne boo xam ni demoon nga exercer say action ba am décision de justice définitive décision boo xam ne c'est devenu définitive amatul benn voie de après nag nga dem xool yi euh, moom lu mu fi bàyyi nga jëm ko topp même bu fekkee nekk na si ay loxo yoo xam ne ay héritier la nga ñëw inscrire sa créance topp sa exécution topp sa xaalis avant nga am décision sur le décédé te fekk yow bon commencé woon nga commencé woon commencé woon sa action ba kii ba pare non bu boobaa dañuy installer les la cause dañuy dem wuti euh, jugement d'hérédité installer les voilà les héritiers la cause continuer la procédure loolu la wax euh, le prolongement de voilà de l'action et de la de la personnalité juridique bu fekkee ñoom dañ na ñoom euh, donnuñu parce que xool nañ ni euh, bor yi ñoo gën a bëri parce que aussi succession aussi nangu patrimoine c'est pas force voilà du forcé nga mën a ñëw ñu ne nit ki yaa ko war a donn patrimoine bi yëpp a ngi ne mu nekk ay abor kese nga nangu ko yow da ngay choisir en tant que héritier ndax d' accord nga pour donn wala d' accord pour donn c' est un voilà c' est un droit qui est laissé à votre libre appréciation c' est ta liberté aussi. la distinction entre bu fekkee. voilà maître Djibril Wélé euh, lañ doon déglu di borom xam-xam bu mag sax. Euh, ci lépp lu jëm ci wàllu yoon euh, disponible itam à chaque fois ñu soxla ko euh, dafay taxaw ngir gindi ñu mais en même temps gindi sénégalais yi yéen ñiy xëy di àndandoo ak ñun mu indi ay leeral ci procédure procédure judiciaire bu xaw a compliqué bi puisque quand on parle de meurtre dafa xaw du du du lu ndaw quand du lu ndaw Pape Cheikh quand on parle de mort c'est-à-dire bu fekkee da nga nekk en contentieux ak nit mu mu gaañu mm. donc il faut retenir deux ah, choses nit bu faatu pas meurtre pas meurtre c'est-à-dire yow euh, nit nekk en procédure judiciaire ak benn nit nit kooku gaañu léegi yow mi nga xamante ne su fekkee yaa porté plainte aussi nga gaañu hmm. ñu xool déjà ki nga xamante dafa gaañu yow nan ngay continuer ak processus boobu yaa ngi doog a comprendre voilà léegi nag su cas boobu amee dafa am ñaari euh, euh, procédure yi am donc tout ce qui est action pénale dafay éteindre à la mort de la personne parce que xam nga tey délit bu ko nit defee on s'attaque à la personnalité juridique de la personne te personnalité juridique nit mu ngi commencé ci naissance am di terminer ci décès am donc su nit ki gaañoo rek action pénale bi dafay éteindre c'est-à-dire mënatul am ay Euh, emprisonnement wala ay yeneen peine yeneen yi maintenant li nga xamante ni nag moom mooy intérêt civil yi c'est-à-dire bu fekkee dafa amaloon nit xaalis ñu wax na ko remboursé wala mu am dommage et intérêt wala mu nekkoon escroquerie xamante ni après dañ ko condamné mu li nga xamante ni comme moom laa wax dommage et intérêt bu boobaa nit ki mën na continuer procédure bi pour moom mu jot li nga xamante ni moom mooy alalam donc bu boobaa nag il faut moom mu continuer ba mu am li nga xamante ni moom mooy décision de justice parce que tant que amoo décision de justice wala li nga xamante ni mooy sa xaalis. mais ku la koy fay. Mm. yi. Ah, héritiers yi ñoo la koy fay doom yi ñi doon léegi bu boobaa nag il faut déjà que ñu def héritage bi ba pare tant que ñoom defuñu héritage bi euh, ak yu amuñu li nga xamante ni moom mooy jugement d'hérédité bi yow mënoo dem ci ñoom di leen fayeeku am na nag ñoo xamante ni aussi su leen neexee ñu fekk ni que euh, da ngay gis kaa yoo xam ne bori bu bëree doom yi di ñu doon wala duñu def héritage donc bu boobaa yow mënoo def benn action pour topp leen parce que munoo fekk ay nit yu toog nga leen def leen seen héritage loolu yoon permettre ko mm. def nañ seen héritage nga dem mais nga signalé au près de la famille maintenant xam nga héritage defoon nañ ci benn émission pour expliquer ni c'est pas forcé nga doon tey bu sa waay jur wala koo xamante ni ayant droit wam nga bu génnee àdduna mën nga jël décision bañ ko doon bu boobaa kenn du la forcé parce que dañu lay laaj est-ce que tu veux hériter maintenant si tu hérites tu hérites et des dettes et des avoirs léegi nag bu fekkee ni que yow xam nga ni sa waaye jur moo amaloon nit ki et que yow bëgg nga fay li nga xamante ni mooy bori boo hérité da ngay dugg ci processus boobu si la ñuy wax euh, loolu mooy prolongement de l'action dans la personnalité juridique mhm. instant boobu euh, héritiers yi ñoom ñooy ñoom la ñuy kii euh, def li nga xamante ni moom mooy remboursement dette yeeg intérêt civil yi nga xamante ni am nañ ko yeneen partie maintenant am na cas yoo xamante ni nag nit ki dafay amel nit yu bëri su amelee nit yu bëri mu am ñoo xam ne dañ la jiitu ñoom dem signaler seen dette ñu inscrire ko ñooñu ñooy fayeeku ba pare yow nga doog a fayeeku comprendre nga léegi su fekkee nag yow da nga am créance ba pare amoo preuve ni am nga créance wala am nga créance mais gisoo bien boo xamante ni nit ki war na la mun a fay loolu la ñuy tuddee euh, créance chirographaire mooy créance boo xam ne am nga ko c'est avéré. mais créance mooy bor. wa créance mooy nit amel la bor waa yow yim lim la amel loolu mooy créance bi donc day am nag état euh, état de fait yoo xamante ni yow di nga am preuve créance bi mais dafa am ñu la jiitu njëkk a inscrire si garantie yi nga xamante ni moom la fi défunt bi bàyyi wala euh, ay euh, héritier wam daal di engagé wu fay kooku donc yow da ngay xaar bu ñu fayee kooku ba pare xaalis bi des ñu fay la maintenant su fekkee nag yow la ñu amel nga ah, defoon procédure si diggante bi nit ki def procédure bi gaañu moom ay kiiwam aussi ay héritier am ñoom dañuy dem dem ut certificat d'hérédité pour mun a continuer action judiciaire boobu nga xamante ni lancé woon na ko de l'autre sens de ce fait ñoom su fekkee dafa am koo xam dafa ameeloon seen waaye jur wala ki nga xamante ni moom la ñu doon ñoom ñu mun a fayeeku Fab Cheikh loolu nga xamante ni mooy xaalis bi. c'est intéressant parce que yenn saa yi nit amel wala am problème. ak nit nit ka mu amal problème ñu nekk ci yoon faf mu faatu. faf mu faatu donc lii lañ ci lii lii la ci yoon wax juste retenir que tout toutefois à toutes les euh, occasions yi nga xamante ni lii day am il faut nga dem tribunal. Mm. nga lancer procédure bi ba nga am décision de justice tant que amoo décision de justice yow mënoo mënoo euh, li nga def benn action. maintenant am na yeneen cas nag yoo xam ne nit ki mënoon na la defal reconnaissance de dette soo demee signaler auprès bàyyi fi bàyyi voilà ak tamit véracité document bi ngay indi yow pour wane ni que kii amel na la xaalis. ko euh, kii bi continue oh, yow yaa koy xool parce que gis nga gis nañ ay cas yoo xamante ni pour ne pas les nommer nga xam dafa nekkoon ay procédure mu nekkoon euh, yu yu yu kii quoi yu bëri woon bruit mais bu nit bi gaañoo mu am famille yoo xam ne dañ leen a war a dédommager ku si nekk cent million bu boobaa nit yi dañuy toog xaar mhm. instant yi bu famille njaboot bi mu fi bàyyi commencé ñooñu obligatoirement famille bi day génne seen 200 millions ba pare doog a séddoo et puis même pour wàllu diine sax euh, selon li ñu gis balaa nit balaa ñu denc nit bi dañuy laaj ñi mu ñu mu ameeloon bor sax voilà par ak conscience su euh, njaboot gi wala ñi ñàkk ñaan njaboot bi bëgg ñoom ñu fay wu sax ñu fay bor la par exemple ñu fay ko ñu fay effectivement dañ koy def euh, bu ñu jullee ba pare balaa ñoo yóbbu kii bi dañ naan képp ku mu ameel bor na yëkkati loxoom kenn ci famille bi membre famille bi yëkkati waat loxoom ne man la responsabilité. de fay ko de ñi nga xamante ne amoon nañoo amee nañ ko bor. donc loolu loolu c'est juste balaa mais xam nga des fois su si cas yooyu peut-être ñi nga xamante surtout li si gën a bëri nag mooy ñi nga xam dañu nekk dans le monde des affaires. Mm. sekkante ak ay nit jël ay prêt bon bu fekkee sax prêt dans le cadre d'une entreprise loolu aussi leneen la tey nit ki bu fekkee dafa nekk chef d'entreprise mu nekk sa waajur mu bàyyi ay bor yow boobu entreprise bi moom moom la. moom moo ameel bor nekkul nit ki même si c'est la responsabilité morale de l'entreprise loolu beneen beneen état de fait la mais juste nit ñi bañ a aussi euh, jaawale li nga xamante ni mooy patrimoine entreprise ak patrimoine nit ku décédé ak aussi foofu ñuy defee déclaration yi des fois nit yi nga xamante ni ameel nañ leen duñ fa egge wala duñu fekkee loolu pour mën a manifester wu jëf waay may mu ngoog